mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyu di rafetluwaat seen ànd ak seen site préféré di seen actu net ñu ñëw ak yéen ci invité de la semaine invité de la semaine tey ci agglomération Touba Mbacké ñu ngi ci fas yéene dalal ku ñuy wax Omar Ndiaye Angloma di chargé de mission à la présidence de la République nekk également responsable APRIS ci commune bu Mbacké mu nekk koo xam ne ku ñu ràññee la ci taxawaayam ci wetu njiitu réew mi président Macky Sall ñu fa yéene waxtaan ak moom nag ci sujet yu bëri Oumar Ndiaye Angloma ma bàyyi leen mu nuyoo ak mbokk auditeurs yi. waaw el ginnaaw bi ñu santee yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wa julli ci moom ñuy sant Seexul Xadim di sant sama wasila Seex Abdoulahi Mbacke borom Daar Rahman donc maa ngi ñëw toog tey ci émission bi nga xamante ni nii yaa koy def nga xamante ni àdduna bépp dañ koy déglu di ko seetaan. donc nga invité ma ci pour ñu waxtaan ci tolluwaayu réew mi tolluwaayu département Mbacké ak actualité politique bi ma rafetlu ko ñëw toog pour déglu la nga laaj ma ma tontu la. li ñuy njëkk rek Omar mooy euh, mbiru parenage parrainage dafa nekk loo xam ne euh, andi na coow ci réew mi euh, mel ni sax lu fi bees la ndax jàppoo ne coow yi dox ci parenage bi ci jamono ji war na tax nag ngir mën a dellu ginnaaw. Euh, déglu peuple bi teg suuf teg ci suuf parrainage boobu wala da ngeen jàpp rek ne parrainage yéen lu leen luy renforcer démocratie la et que da ngeen war a continuer processus boobu lu ngeen si góobee gar ko. Euh, yàlla moo dogal opposition bi dajeeg régime Macky sàll nekk opposition boo xamante ni opposition bu cuune la parce que affaire parrainage bi man jàpp naa ni war te nekk problème parce que nag el nañ waxtaan élection député yi passé vraiment mais nombre de bulletins yi nga xamante ni nii moom lañ defaroon di ko wote mais ku ko xool xam ni lii jaaduwul parce que mënoo def ay bulletins yoo xamante ni nii ay Me El Hadji a nga ca ay ñeneen a nga ca vraiment bi ñu demee élection député benn député sax mënoo ko am ñu bëggaate ku feeña ñooñu pour valider leen pour ñu nii dañuy laaj réew mi ëllëg waaw comme que yow am nga électorat am nga tam dayoo war a mën a laaj réew mi waay waay li ñu la laaj kay def ko signature yooyu ku ko mën am kay waroo mën a taxaw di laaj di di di di laaj Sénégal parce que euh, euh, loolu élection liñ ñu ciy dépassé ak di ko jox parti yi parti yooyu am na fu mu xaj ci réew mi comme ñoom mën nañu te jàpp nañ ni am nañu électorat waay waay waay waay nañu dem ñu nangu signature yooyu buñ ko nangoo ñu wóor ni kii am na élect euh, majorité pour mën a dem élection ñu bàyyi la. nga dem élection amoo ko ñu annulé yooyu parti parce que am na nag el ay parti yoo xamante nii nañ waxtaan kenn xamu leen kenn xamu leen parti yoo xamante ni nii yow tey ku la boole woon ak Abdou Mbacke Ndaw maire Mbacke sax mu gañ la te nga yor ab parti national ni ab parti nga incarné mais quand même loolu c'est pas sérieux opposition bi ci boppam ñoo amul programme yow am nga majorité mën nga mën nga mën nga mën nga indil réew mi dara waaye waaye kay ñoom kay nañ dem tànn benn candidat ñoom ñooñu ñu ni ñi nga xam ne mënu ñoom nombre de signature yooyu nañ ko def ñoom niñ ko def woon ci référendum bi def ko ci élection député yi dañoo demoon tànn ab candidat dem ànd ak ñoom ñi ñu àndal bi ñu àndee ñoom setti député la ñam kon wax ji jërte guddal jërte bari ndax ndax njortoo ne ndax njortoo ne euh, mën ngeen a dem ba lu mel ni 23 juin ñëw comme ni ko nit ñi di euh, di xalaate daal ne war na mën a amaat benn 23 juin ndax gis nañ ne euh, ni ko opposition bi waxee ñu ngi dellu ginnaaw si wàllu démocratie. xam nga el 23 <laughs> juin képp ku koy yéene Sénégal sa bëggoo Sénégal li la wax ni bi gëmuñ ñuy wax ni ay Idrissa Seck ak ñooñu Sénégal ñuru leen gëmuñ ko mooy 23 juin ñaata nit a ñaata la njàq ci ci ci ci ci ci ci alal réew mi donc boo demee ba am réew moo xam ni gaz feeñ na fa pétrole feeñ na fa. Ila Touba 416 milliards réew mi dox nga ni 23 juin ba amoon nga xam ni courant yi da daan coupé dund bi seer nit ñi nekkuñ ci liberté nit jël doomam bëgg ko imposer sénégal yi teg ko ci réew mi nit ñi xeex loolu ba mu jóge fi bu fekkee ni loolu moo mi ñu koy bëgguñ Sénégal parce que 23 juin dafa dajante courant bi mi ngi coupé dund bi seer na gars yi sàcc alal réew mi def yor nekk ay milliardaires. Karim Wade nekk ci réew mi di def lu ko neex bàyyam jël décision ferme pour bàyyee ko Sénégal dem waaw boobu moo tax gars yi dem xeex pour lool lool loolu bañ a am bi 23 23 juin mën nga cee génne Youssou Ndour mën nga cee génne Moustapha Niasse mën nga cee génne Ousmane Tanor Dieng mën nga cee génne ñun ñun ñi gagné pouvoir bi ñi xeex 23 juin ba loolu amul ñoom ñoo yor rési ñoo ñoo ñoo dirigé réew mi bi ñeneen ñi wax lu ñu am 23 juin Moustapha Niasse dafa joxe woon bakkanam. Macky Sall joxe bakkanam Idrissa euh, kii euh, Youssou Ndour joxe bakkanam Ousmane Tanor Dieng joxe bakkanam tous les responsables yi nga xam ci am nañ influence ci réew mi taxaw ba pare sénégalais yi moom seen réew itam xam ni ñii ñu leen di bëgg def du yoon ñooñu taxaw mais loolu mënul fa am tànte nañ ko fi ba sonn ñu ni marche waaye dama ni chaque jour ñu ni marche tara waxuñu woon àjjuma dañ dem marche ci buntu ministère intérieur dañ faa jaar am dañoo yaakaar na ñoom sénégalais yi ñuy waxal naan dañoo 23 juin dafa war am ci réew mi ñooñu ay sénégalais lañ yoo xam ni réew mi moo leen ñor nekkul ni politiciens yii ak opposition bi rek ñoom ñoo yor ñoo ñoo réew mi dafa am ñoom dañ fi am seen alal am fi seen i doom am fi seen i compte am fi seen seen ressource te politique guñ ñooñu dañuy sàmm réew mi ñoom nag comme nekk président de rekk leen ñor ba dañ ca ñoom réew mi sax tàkk ba nekkub doom te ñu nekk ko ku mel ni Idriss Seck donc ñooy ñaan yàlla loolu ci réew mi. tudd nga sànq Idriss Seck muy responsable boo xam ne gis nañ ne soobu nu bu baax ci langue politique bi mën nañ jàpp sax ne moom mooy principal candidat de l'opposition fi mu toll nii parce que ñi bëri ñu ngi ci kaso bi nit ñi jàpp nañ ne mooy seen adversaire bi gën a dëgër ci jamono ji ñëw na Touba doxantu na fi euh, jël na fi ku mel ni Galas Kaltoum te mi ngi commencé di tisser sa toile comme ni ñu koy waxee ci français est-ce que njoxtu leen ne euh, ak Idrissa ni muy doxee ngeen xaw ko xeeb mënul dem ba li olof di wax nga xeeb xal mu lakk sa dàgg. Euh, njiitu opposition moom euh, da ngay am programme c'est-à-dire da nga naan sa Seck mooy koo xamante nii ca sàncee kees ya nga sàcc milliards yoo xamante ni nii kenn xamul foo ko denc ba nëgë ni yor alalam di wër réew mi di wër di di wax nit kooku mooy wër Sénégal di wax donc tey bu fekkente ni nii opposition bi bu fekkente ni nii. Idrissa Seck mooy candidat bi war a jàmmaarloo Macky Sall waaye alhamdulilah rabbil alamin kon kay Macky Sall am na deuxième mandat koo xam ne yow li nga li nga def ci Sénégal li nga fi wax barki démb ak démb mi ngi ni far ni nii ba léegi ñun Sénégalais yi tiim ko mu leer ni Sénégalais yi gëmuñ ko wóoluwuñ ko doyloowuñ ko amul programme sa Seck Macky Sall mii muy wax Macky ingénieur la jàng diplômé jiite assemblée nationale mu dox. mu jiite euh, premier ministre Sénégal mu dox mu nekk ministre de mines mu dox mu jiite nu mu nekk euh, dem candidature première élection gagné réew mi muy dox ba léegi il a Touba 416 milliards ak li feeñ ci réew mi donc Idrissa Seck lan la consultant de lañ ni moom la ay diplôme dañ la ko fabriqué indi jàngoo amoo xam-xam Idrissa sekk li fekkente ni nii moom ci jëmmi boppam mooy taxaw di wax ak sénégalais yi bañ naan Karim Wade woo na ko pour jubóole ko baayam waay waay waay waay waay man damay bëgg a waaru. yow yow barki Demba Ndiaye li nga fi wax Ablaye Wade man nga xam ni rus naa koo waxaat sax ci émission nit ñi di ko dégg muy wax ju ñaaw ju bon yoo xam ne julli sax war koo wax moromu jullitam kooku boo demaatee ba ñëwaat naan da ngaa war a sa baay Karim Wade dana leen jubóole ngeen ànd Ablaye Wade ma nga xam ne Iddi du nit ko gëm boppam sax ba war a jiite am réew. en tant que journaliste ak ñi may déglu xam nañ ni sa Seck la mu waxoon Ablaye Wade Karim Wade may doomi Ablaye Wade bu fekkoon nit la. wala deret a ngi daw ci yaram du mës a yëkkati téléphone di woo di woo parce man d' naa nga attaqué ma ci politique ni doxul d' naa mais wax ju ñaaw joo xamante ni nii kuy nitu diine wala kuy nit ku baax bu ko dégloon mëntat yi cible donc kooku boo taxawaatee naan sénégalais yooyu laay jàkkaar lool laaj leen seen réew donc dugg Idrissa Seck Touba el <laughs> xanaa Idrissa Seck bi mu waree Touba xanaa ba mu demee ba nu mu tëti pencum bu soobee war naa rus de Idrissa Seck ni foon benn kilifa Mbuso bi Xaadim Mbuso muy déeg muy dund la waxoon fu mu mën a ne dañ ko indi Idrissa Seck moo fi waxoon euh, euh, euh, kii sëñ Modou kii sëñ kii Dolli sëñ Baara Dolli assemblée nationale Mbàkke mu ne fii amul Mbàkke Idrissa Seck la fi sëñ Mourtala joxoon ab jàllaat mu joxewaat ko ngir gëmuñ ñoon kooku boo wëlbatikuwaatee ni même yoon wa nga bokk pour nekk président de la nga xam ni Tiwaawan ak Touba doom doom doom yëkk lañ. alaaj Malick Sëñ Tuubaa benn lañ bëgg nekk président de la République tax nga dund cinquante ans xaw ma soixante ans door a xam kan mooy Sëñ Tuubaa di nga xam Idrissa Seck ay ree sax nit la koo xamante ni nii du koo xamante ni na sax jox am réew Galas Kaltoom mi mu fi décroché Galas Kaltoom ay intérêt bu ko ba bu ko Jean-Paul Dias sax mu dem ca ay in Galas Kaltoom ay intérêt pour bëgg a dund Jean-Paul Dias laa bu yoroon bu ko Galas mu leer ne samay intérêt ci Jean-Paul la mu dem ci Jean-Paul Dias xam nga kooku du ay valeur yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu yu ñuy consulter tey sëriñ sëriñ sëriñ Abdou Mbacke mooy ki ñu defoon tête de ak yeneen yeneen Abdou Lahad Gaynde ma nga xam ni da nga naan Gaynde Fatma Lat Joor Ngone Latiir Sëriñ Tuuba mu boole deretu garmi ak deretu wàlliwu kooku tey jii bu jaaroon ak Macky Sall fii Galaskal Tom jaar ak Macky Sall dara jëy rasulullah bu ko Macky Sall dàqoon daq bi gën a ñaaw sax du jàppaarloo Macky Sall di ko di ko opposé parce que am na luy daw ci yaramam. koo xam ne yow soo campagne mosoo jàppale président Macky Sall ñu jël la def la tête si liste nga nekk député pendant cinq ans sept ans di fay ko sab xaalis yor sab 4-4 am say passeport diplomate séddale ko say goro ak say mbokk. ci département bi bi nekk Gallas Kaltom nekkee député ba tey fan la mos a organiser meeting bu Macky Sall boo xam moo ko defal fan la ma a def point de presse fan def defee karawaan jël sa poste dem tëdd say hôtel lekk sa sa sa sa poste ba mu jeex ñu changé la remplacé la sa nawle nga wëlbatu ko xeex di xeex ba ngir nekkatoo ci di liste ba pare ñëwaat daal di fekk Idrissa Seck nga xamante ni nii nga ni nu mu tuddati Idrissa Seck jot réew mi dox la. ak wax di ko dox di ko wax ba mu jël réew mi ma ni sëñ Moussa Nawel moom toogoon di wax loolu dafa xam ni mbàkk mbàkk day rus mbokk mbàkk moo tax ma koy déglu mais feneen fu mu ko waxoon kooku jóg dem sa yoon. dana nekk député pendant sept ans kii defal la ko jël tracteur bi jël 30 millions lu ne mu defal la ko ak jabaram nga xëy suba wëlbatiku ci koo xamante ni yow mosulaa defal mosulaa defal benn teraangay politique wala ci àdduna nga ni moom ngay jàppale kooku boo koy xabaar ña ngay toogal di wax sax ay ay ay reetaan ngay dem ma ni il faut arrêter. li ma gëm di ko wax mooy gal bu doon bay jàppale ci politique na dem jàppale ji Ousmane Tanor ji la ko Ousmane Tanor Dieng defal kay ca jamonoy parti socialiste njëkk koo joxub oto defal ko done na dem jàppale ji Tanor kon li ma jàpp mooy nit la koo xamante ni nii nit kuy wër ay intérêt di ko régler intérêt yoo xam nag bu dee alal wala teraanga bu ko Barthélémy bu ko Jean-Paul Dias sax mu dem fa galas du ko ñuy déranger ci ci ci ci politique yow mii jël nga ma fii bañ ko defee tëddalist ma Abdou Lahad Gaynde Fatma déglu seetaan naa ko taayee ci euh, Dakar Actu mu ne moom Macky Sall da ko def ci liste mu perte Macky sal la soxla dina futtee ko jàppale ko voilà la surtout surtout surtout Lat Joor parce que loolu la loolu la loolu la nit ku baax di def mais mënoo yor te teraa ngay nit lekk ko ba mu jeex nga wëlbati ko fekk ko àdduna bépp bàyyi sax nag far nga ne da ngay ànd ak moom Idrissa Seck moom <laughs> nu mu tëddee bu fekkente ni soit Galas Kaltoom mooy Idrissa Seck mu ne dana dox wax fal ko yaakaar naa ni kon bii yoon dana dox. wax bay bëgg a dee mais lam bëgg du ko am parce que Idriss Seck moom du ko Sénégalais yi jox réew mi. ma fàttali ba tey ne yéen a ngi suivre invité de la semaine di Oumar Ndiaye Angloma di chargé de mission à la présidence de la République euh, Oumar am na également euh, yeneen nit yoo xam ne ñu ngi ci société civile bi quand même ñu ngi fas yéene jàkkaarloo yéen mi ngi commencé di leer ku ci mel ni Bougane Gueye Dany dégg nañu wax ji mu wax ci Tivaouane wax na ne njëriñu réew mi instant bii nii du Macky Sall continue di fi nekk. loolu bi nga ko déggee yow naka nga ko jàngate est-ce que yaakaaroon ne kooku aussi candidat la boo xam ne euh, bu jàmmaarloo ak yéen ak li nga xam ne mu ngi koy dox ci jamono jii war na leen mën a indi ay difficultés ci mouvance présidentielle. cuune opposition bi nga xam ne amuñ candidat faar bu mën a jàkkaarloo Macky Sall moo lay moo lay moo lay wax loolu lépp buñ demee ba Sénégal ñu ne opposition ngi fi am Bougane Gueye di génn di wax ci régime ba bay am bërëb nga xam ni kon ban an opposition bi ana ñu doon politique. ana ñu jiite woon parti pendant pendant vingt ans trente ans Bougane Gueye bu fekkente ni nii mooy dem bay wax ci réew mi maanaam di am bës moo lay won ni réew mi amul opposition bu mën a jàmmaarloog président Macky Sall parce que Bougane Gueye Dany kan mooy Bougane Gueye Bougane de man ci li ma ko xam ci li bi ma koy xam di xam ni Bougane Bougane daal Dany Bougane mooy biñ jàppee coon ci affaire bi affaire nu xaalis bu baaxul ñu ne nu mu yoon doomu coon man ci laa xam mën tëti laa xam buggaan kii daal donc bu fekkente ni nag Sénégal dañoo toog ba réew mi am pétrole am gaz ay xale ñu war a forme nekk fii ñu war a yor xaalis bu set réew mi war a dox ci normal ay nit ñoo xamante ni kenn xamul fu ñu jëlee seen xaalis ñoo war a porter ab candidature wala fal keneen pour yooyee maanaam xaalis yooyu nga xamante ni kenn xamul fu mu jógee di dugg ci réew mi loolu moom du fi am. ah loolu waral parrainage bi. non du loolu c'est-à-dire dama ni el sénégalais yi walaa bul gi ñu wa xam nga bëggoon ngay daani ma maanaam walaa bulul lu Youssou Ndour walaa bulawul Youssou Ndour ku ne xam na ni alalam da koo liggéey ba am ko ci tëggi poto euh, tëggi poto meew di def kéem di orchestre ba am li am ubbi médiam am influence ci réew mi ànd ak président Macky Sall xanaa Bougane Gueye Dany buñ ko bo ñun ñëpp bu Macky Sall toogoon boole ko Youssou ci réew mi sax ñu wër Sénégal Youssou Ndour gagné ko. bugaan lu mu defal réew kan la bu kañ la bugaan am xaalis lim yor fu mu ko jëlee et puis maa ngi wax nii ñuy saytu xaalis bu lewul nañu xool kan ñeen ñu nga xam dañuy jékki-jékki rek yenu seenu mbattu di wër réew mi naan ay nu mu tëddi euh, xaw ma nu mu tuddee mouvement bi sax gëm sa bopp nit ñi bañ gëmee seen bopp nit ñi Sénégal kay ba ba fi la joor ak Alburi feeñee sëñ Tuubaa feeñ fi la nit ñi gëm seen bopp. Sénégalais kañ bi ñu gëmee seen bopp du léegi donc euh, loolu il faut ñu ñu ñu xool ko bu am Bougane Gueye lu mu représenté lan. yor na organe presse am de am nam sa koom tam muy toog di ko def revue de presse koy revue de ko mais ñoom ñu jóge ci yooyu moom liggéey luñ réew mi lu nit ñi liggéey luñ lu nit ñi sénégal yi di ñi liggéey lu réew mi mën naa fee ci lim tant de milliardaires yoo xamante ni nii ñoo ngi défendre pays bi di ci def seen alal mais alal joo xamante ni nii kenn xamul fu mu jógee man wax dëgg yàlla te barki dem boo njaay ñu jàpp sa sa goro ci xaaj bu lewul ah boo xëyee porteb candidat di wër réew mi Sénégalais yëpp war nañoo bàyyi xel tey sam xel seenum xel wax naa tey ci loolu. ñu jeexal Oumar Ndiaye Angloma ci euh, département Mbacké yéen a ngi waajal élection présidentielle mais ñu gis ne quand même euh, manque d'unité bi ba léegi mi ngi am nit ñi bëggante wuñ seen biir te pourtant benn candidat ngeen am benn objectif ngeen am muy falaat ko. mais lu tax ba léegi unité bi ngeen di wootee dégg nañ moo du Bara Dolly mu ne bëgg fi gis Cissé Lo bëgg fi gis par exemple ku mel ni Moustapha Diakhaté yu mel noonu ndax bu wéyee euh, unité bi ngeen war a am pour mën a dem ci élection yi jàmmarloo ak opposition bi euh, dina war a mën a nekk. Euh, am na ñoo xam ne bu ñu ne bëgg ñoo gis diw ci parti bi wala ci fii wax dëgg yàlla nag man ay reetaan la may def man mi ngi mel ni am galaw ba ni bëggumaa gis Angloma ci Mbàkke ci APR. boo ko waxee ay ree ngay def nit ñi parce que nag moo Modou Mbacke bari dool dooli sama xarita mais bu nee bëggut a gis Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ci Touba te ñooñu indi Macky Sall ci pouvoir bi joxe ci seen bakkan def ci seen alal ah mais kooku quand boo nee da ngay jàppale président de la sa sax kon jàppale doo ko man damaa jàpp ni nit ki xeex ba indi nit ki ci pouvoiram ci poir bi def ci alalam def ci temps boo nee kooku bëggoo koo gis ci Mbàkke Touba pour unité li koy indi mooy respecté tam ña fa ña fa fekk parce que nag boo fekkee nit ci këram nag bëgg ni ko yow mii ma fekk ci kër gi saal bi dañ koy génn dem toog ca mbedd ma laa coow day am nit bala ngay woote unité ñi fa fekk da leen di ba pare parce que parti bi am na ñoo xamante ni nii ñoo ko sos andi ko ci paar bi am na ñoo xamante ni nii 2014 lañ ci ñëw am na ñoo xamante ni nii démb lañ ci ñëw ki ñëw ak ki tey ñoo yem ci waxin waaye nag ña nga fa fekk jox cër ndax nit ku la njëkk ci tool nag moo la gën a xam fa gerte ga war a meññee ak fa gerte ga war a am ay fooyooyu kon unité ñi nga xamante ni nii ñoo ñëw dañuy respecté ñu ngi fi fekk ñu ngi fi fekk tam nangoo yaatal parce que nag nekkul ni maa njëkk ci parti bi maa fi nekkoon maa fi defoon nangam maa fi nekkoon 2009 wala maa fi nekk taxul nga parti ku ko bëgg mu yaatu ña fa nekk da leen di accepté ba pare yaatal leen ña nga yaatal tam xam ni lii ma fekk ñii dama leen cee fekk ñuy xeex ak seen waay ba andi ko ci pouvoir kon naa leen jox cër. exemple ku mel ni directeur Gallo bi bi ngay wax Gallo 2014 la ñëw APR buñ nanguwutoo mu jiite liste APR yi nu mu tuddati du du lii mu am tey du ko am dañ ko koo nangul ko mu jiite liste lan la liggéeyal APR bay liggéey bay bay jiite suñu liste buñ bañoon du jiite liste yi bu ma bañoon man mii kes du jiite xeex ba yóbbu bi ci mais bëggoon lu baax ak bëgg mu moo tax ñu bàyyi ko mu ji mu mu mu jiite mu jiite liste yi ba mu ko jiitee dañoo perte teewul ñu àndaat. dem référendum dañoo perte donc lii nga xamante ni nii itam moo fi ne mooy il faut ñu accepter ñu ñëw ci parti bi te mën dara mënoo am ab parti boo xam ni la maire de Mbacké ba daan lay gagné dafa ñëw ci parti di la jàppale te nangoo ko accepté te yor te yor teraangay parti ba loolu mën ta nekk kon dafay mel ni yow sa njariñal bopp dong moo la tax jóg waaye parti bi sax ñoru la ndax ku parti ñor ja ki ki nga xamante ni nii mën na dara di la jàppale danga ko war a accepté waxuma la ak sax koo xam ne mënul dara mais mën nañoo nekk ci parti boo xam ne nii boo indee Abdou Mbacke Ndaw ñu xeex ko boo indee euh, euh, Moussa Sakho ñu xeex ko boo indee te ñooy xeex parti ba yow dañ laa yaatal pour nga pour pour pour nga ñëw buñ la yaatalu toon est-ce fi nekk di xeex di xeex kenn ñaawlu naa bu baax te ni moom tëj élection yi élection député yi passé li fi xew ñaari comité électoral kay ki def tête de liste kay waay waay waay waay yow nekk nga directeur général yàlla def ñu ñëw la jàppale ba nga nekk lépp nekk ko kañ def tëdd liste ba kay demal jàppale ko te jàppale ko mooy li la war ndax jàppale ko mooy jàppale président Macky Sall ndax président Macky Sall la jox teraangaam kon ki la jox teraangaam comme jël choix même bu doon ab potu làmp sax boo dees gor war ngaa dem jàppale potu làmp boppam jàll mooy li ngay wax ci commune de Mbacké unité boobu problème boobu la am problème intérêt personnel kenn ku ci parti parti bi wengoon jërëjëf kon euh, mbokku internautes yi ñu ngi lay rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci invité de la semaine mu nekkoon Oumar Ndiaye Angloma di chargé de mission à la présidence de la République doon wax ci yenn question d'actualité yaakaar nañ ne lim leen àndil euh, am na solo te di ngeen koy di ngeen ñuy xel di topp saa ne ak yeneen i invité asalaamaaleykum wa rahmatullah